lay fay Ousseyn sant yàlla bu baax kon de bi nga amee bi sa combat bi yàqoo ba léegi maa man man xam nga man man détail yooyu bëgg gis naa maa ma bëgg démb jël na avance lan mooy sa problème ba jël loo mel ni nag yaa gën a am position bu baax am am combat dafa mel ni yaa ñëw pour remplir sa contrat mais nu kenn comprendre nu mu demee noonu comme comme lan nga expliqué noonu ngaa gis Mama Lamine combat am taxaw na gis nga commencé combat taxaw ci yéen ñaar yéen a woon bëre lan moo woon boobaag léegi combat bi taxaw soog ko de. non Mama Lamine dafa nekk nga daa yore promoteur bi combat dama ne woon ko. xanaa loolu information la yeggali ma bëre. déggu ma. non dama dama ne Mama Lamine am na combat te defe naa yow la ñu victoire n'est-ce pas. non loolu maanaam maanaam yéen maanaam li gars yi comprendre mooy comme li ma wax rek man victoire bi intéressé wu ma woon. li ma intéressé woon ma ñëw contrat bi wàcc ma parce que combat ñetti at mënu ma cee ne ci benn combat di daw pendant. dégg nga moo daan dal nee na Mama Lamine moo ngi contesté sa victoire. man mosoo ma taxaw fenn euh, maa daan Mama Lamine wala déet su ma gisee wax ju rafet laay wax ci moom mooy dama koy encouragé maanaam boo lëggee moom buy wax na xool li muy wax parce que moom sama nawle la respecté naa ko sama moromu mbër xam parce que mu ngi naa am est-ce que Garga 2 am na yoo xam ku wér du ko def ndax bi ndawal luy amee ma yëkkati naa sama woo ko woowaat te saa yu ma déggee micro ma chaque jour dama koy ñaanal réussite totale comprendre na loo xam te ni man rafetlu ma ko quoi ci kàddoom man man joxuma sama bopp ndam CNG moo ma jox ndam waaye malgré ndam li man intéressé wu man li ma bëggoon yàlla dogalu ko. lan nga bëggoon. mooy ñu bëre comme yàlla dogalu ñu bëre man damay xooli leneen moom xooli leneen laamoon bu yëpp na tànk. mais moom dama gis ne yaa ngi moom yéen a woon bëre mooy moom am na combat te boobaa ak léegi yaa ngi toog di xaar lan mooy problème bi. non man moom sama problème mooy a jël ñoo ma ñoo ma nangu ko jël. mais yan mbër nga fi mën a bëgg bëgg bëreel ñu lay bañ wala ñu lay ñu lay ñu lay daw Garga 2. sama mbër yi ñoo xam te làmb buñ ko déggee dinañ ko nangu. ni may waxee yow nii doonoon dox sama combat ak Quench yàlla dogalu ko am na lu ma dégg ni mu ngi ci yal na ko yàlla sottal. am nga loo dégg. ni mu ngi ci yal na ko yàlla sottal balaa yàgg ñu ngi dox sama combat ak Alioune boo léegi xaw ma lan moo tax taxawul comprendre nga. mais Alioune Seye 2 est mu mujjee daan sos. waaw daan sos teewul nga bëree garga 2. làmb maanaam yéene naa leen ay eh, eh, eh, xaalis quoi ay Alioune Seye de. Alioune Seye làmb du ko dàq. làmb ju neex la waaye yéene naa leen xaalis maanaam par exemple man su ma sañoon mbër yëpp réussir waaye man sama naw la mbëri maanaam bu ñu ci bëre rek nan bëre suñu biir quoi parce que loolu ma dundal làmb ñu bàyyi xëccu ku nekk di xëccu man li ma fi def nit mënu koo dindi ku daan doomu daangu daan Valdo te Valdo daan nay moromam yëpp doomu daangu daan nay moromam yëpp loolu rek doy na épargne comprendre nga waaye dafa am dafa am loo xamante ne man rafetlu ma ko ci làmb man da ngay gis koo xamante ne da nga ñi nga nga xamante ne yow soxla woo leen sax ñoom la ñu dem jëlee comprendre nga. gis koo xam ne yow sa combat yaag moom mu bañ te yow ñi muy dem di bëreel doo leen bëgg. bu ñëwoon di la ko wax doo ko doo leen bëgg la gënal. keneen ki kan la ñett nga ma wax keneen ki kan la. non wax naa la lépp ñett. Kouentz nga ma wax ak Alioune Sèye Junior des na kenn. non ñeneen ñi xam nga ko Moussa Ndoye doon na dox sama combat ak moom bëggul jën gar jën gar aussi ñu ngi doon dox combat ak moom bëggul maanaam man nekkuma di xëcc pour bëre kenn parce que ma fi def yàlla dogal na ni Garga 2 mënatul turam mënatul fay ci làmb damay bëre damay indi ambiance damay am doole su ma amee combat am na ci loo xam ne nag mbir suñu borom la dañ koy sant yàlla bu baa mbëri nañ ñu jël ñu bëre. dama dégg ngay wax benn wax bu am solo mooy wax bi nga wax ne seeni mag dañ a war parce que yenn yi bu seen biir dong war na mën a may saa jàppale leen ngeen yëg wane seen bopp. moo tax man la man su ma seyoon sama moromu mbër yëpp am xaalis parce xam naa ne ku ci xaalis say waajur leen dimbali comprendre nga moo tax ñoom bu ñu waree bu seen nawle nan nan dem bëre jël seen nawle xam nga ma wax seen nawle mbër waaye bu bu maanaam comme tey ñun la Ouzin ak Garga 2 même boo bëgg a dëgg bëre Garga booy jël combat bul jëli keneen koo xam te ni Garga doo ko raw waaw waaw loolu laa nanguwul soo nee ma bëggoo da war a dem xooli leneen loo xam te ni moo raw Garga 2 comprendre nga waaye parfois da nga gis combat yu taxaw yoo xam te ne da ngay xam ne lii moytu total la comprendre ñu ne ci làmb ji la di ñaanal suñu frère suñu xarit Moussa Dioum 2 yal na ko yàlla may ndam la 14. mais ngi bëre booy bu waane booy bu mën a bëre booy bu am wétitu bëre muy non man moom Moussa Diouf du ma ko conseillé ci bëre parce que ñoom génération non xam naa lu mën ak lu mënul. mais bëre bi est du am lu muy def ci moom. góoma loolu góoma loolu parce que ko seetaan bu bëre boo ba léegi gars yi am combat muy ànd ak kon loolu waru ko def dara quoi di ko rek yal na ko yàlla suturaal may kon ndam di ñaanal góor soog tamit yal na ko yàlla may ndam ak euh, beneen booy parcelle bi. ñoom yëpp képp mbër bépp mbër parcelle bu am combat daal yal na la yàlla may ndam bu soobee yàlla kontaan naa jaajëf Ousseyn